seen jàngat ci AGT News. ay Ousmane Sonko mën a xale bi mën a kàcc waaye Ousmane fen xale bi mën a fen fen gi ba nëb ferma ñu bëri nag dof topp la gaa yi yeewu leen xam nga Ousmane Sonko prix forest la ba léegi nii xam na ne prix forest la ñu amaat ndax li ko mayoon 15 pour cent yi mooy 7 pour cent wu Karim ak 7 pour cent wu Khalifa Sall plus 1 pour cent bi mu amoon muy 15 pour cent. parce que bu Karim Wade bokkoon ñu élection yi passé ak Khalifa Sall un lay amaat ndax tegu ci onze mois ñu def élection yi te un pour cent la amoon moins de un pour cent muy plus forest muy gëmloo nit ñi comme Khalifa ak Karim euh, out muy profité li ñu naan le malheur des uns fait le bonheur des autres muy ñam na ngat dafa am doole amul benn doole day da nga fekk seen jour ko ma yow troxal laaj bi ñu samp tey encore une fois dafa ñeel kii di maître El Hadj ndax tekk-tekkaaral gi nga xam ni moom def na ko nekk na lu ñu yéem lool El Hadj fàttaliku leen moom saa su nekk mu daan génn di wax ci kii di Ousmane Sonko daanul xaar sax ku ko interroger ci moom waaye ba ba tey yàgg na lool kenn déggatul fenn El Hadj Diouf maître El Hadj Diouf mi nga xam ni Sonko la doon xaar mu def mbir rek mu daal di ci addu wax ci ba ñaq tooy xepp comme ni ngeen koy gisee nii ci image yi nga xam ne fii Ousmane Sonko la doon dal jamonoy élection législative yi nga xam ne Sonko da doon def lu jëm ci wàllum campagnal ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci liste yi. moom maître El Hadj mi ngeen di gis nekk na koo xam ne mësul may dara Ousmane Sonko kon tey nemmeeku tuur ba ko Ousmane Sonko di def boobu ba tey dégguñu fenn fu El Hadj Diouf waxee dinañu jaaxal kon tey buñ demee bay génnee le nom de Oscar Sierra comme nom de code bu Ousmane Sonko di ko waajal pour procès ak Adji saar dégguñu maître El Hadj Diouf dinañu jaaxal lool loolu moo waral suñu jàngatu tey bi ñu ne kat nañ ci waxtaan ak képp kuy seetaan bi lépp vidéo que ne yow nañ ci joxe sa xalaat par rapport ak lan moo waral maître El Hadj Diouf kenn gisatu ko lan moo waral maître El Hadj kenn déggatu ko fenn lan moo tax El Hadj Diouf ba ba tey amul benn yëngu-yëngu boo xam ne mën nañ teg bët ne kii El Hadj la moom moo ko defa lan moo xew qu'est-ce qui se passe réellement. dañoo am nag ay hypothèses yoo xam ne dañ koo am ci mbir mi yii moo mën a nekk. bu njëkk mooy te ñaanaluñ ko ko mooy El Hadj soit dafa tawat ñaanaluñ ko ko ndax moom ak lu mënti xew sénégalais la boo xam ne yàgg naa xeexal Sénégal te ñëpp a ngi koy ñaanal moo nekk ci wér bu fekkente ne ab tawat moom moo ko dal wala mu am jafe-jafe ak nguurab Macky Sall amaana daa dem ba rendre compte que ne moom la mu nekkoon du dëgg la mu nekkoon du yoon kam doon attaqué ndeke mooy ku baax ki ñamu doon attaqué Ousmane Sonko ñooñee dañ koo war ñu trahir ko. loolee mën na ci nekk ay hypothèse ñu teg la. wala moom Maître El Hadji Diouf dema dema dem ba ne moom moo jël décision wu génn ci vie publique bu Sénégal comme ni ko Cheikh Yérim Seck defee woon. loolee nag mooy li nga xam ni moo di suñu xalaat di suñu hypothèse yi nga xam ni moom lañ teg par rapport ak mbir mu ni mel ku ci nekk am nga ci sab xalaat ñi ngi leen ciy déglu di xaar seen ay commentaire kenn ku ci nekk wax ñu li mu xalaat ci maître El Hadj lan moo ko teree génnati ak itam dossier Sonko Adji Sarr bi ñuy waajal lan ngeen gis ni moom moo ci nar a xew par rapport ak convocation bi ñuy waajal ak itam ñu bëri ñi nga xam ne dañoo seq bi lépp dossier te boobu ba tey ñu ci ëpp kenn déggatu leen. waaye gars yi bu leen fàtte itam di bës j'aime waaye te ngeen abonné ci suñu chaîne bile ngir lépp loo xam ne dañ koy def ci ay xibaar ak i jàngat bañ leen a raw partage leen itam ngir képp koo xam ne rek xamutoon chaîne bi mu mën koo xam saa su ne ay xibaar fii lay xewee ak ay jàngat yu ama am solo par rapport ak politique bu Sénégal ak lépp loo xam ne daf di fait di ko waxtaanee fii ci AGT News.